ginnaaw kaaf ci daan gu leer gu mu daan arbitre bi FIFA daan na lu toll ci ñetti at arbitre bi loolee du suñu kàddu waaye dañ leen ci bëgg andil comme da ngeen noo taamu ci information yu wér te wóor xibaar boobu dëgg la wala du dëgg loolee mooy sabab vidéo bi ànd ak ñun ci information yu wér te wóor Aladji Malick ci kàddu gi loolee bénéfice la ndax bépp rumeur boo xam ne yéen a koy gis ngeen man ci am lu leen leer ndax YouTube bi dañoo faral di gis maanaam ñu ci bari nag wax dëgg yàlla ay fausse information day daw ñu di leen ko moytuloo bu baax a baax information wér te wóor Aladji Malick TV numéro euh, bu baax bi 66 907 71 80 Malick Sarr sponsor officiel ci kër gi di jàmbaari fàkk te du doomu nday mudloo stock ba ñëwaat na ci moyen Barcelone Real Madrid ak Manchester United Bayern Munich ak ñëpp ba ci équipe nationale yi yéen maliens yi ne ci dëkk bi ak guinéens yi nga xam ne yéen a ngi waat ñun moom toog nan bu yàgg bu ngeen demee ci Malick Sarr Sandaga borom Sandaga mu jaay leen ay arbitre boobee laa leen bëgg a ñëw ci daan yi ko kaaf daan benn nga xam ne daanaka luñ mën a nangu la maanaam daanuñu ko ngir moom arbitre bi dafa xeex Sénégal waaye dañ koo daan ngir dafa xeex Sénégal dafa xañ Côte d'Ivoire amul niveau ci match bu mag biñ ko joxoon Sénégal Côte d'Ivoire match bu mag a mag la lii ngeen gis Sadio maane def ko ñancoo international loolee dafa mérité woon ab carton rouge bu mu war a teg ci taabal ji defu ko loolee nag bokk na ci benn yoon biñ ko jamee loolu di benn beneen jam-jam bi muy carton jaune bii mu ko jox moom arbitre bi gone kaaf yi dañoo jàppoon ni loole ab carton rouge bu leer naññ la ah, ci diggante match Sénégal ak Côte d'Ivoire. yeneen ponk yoo xam ne sax maanaam am na ci biir ñu ñëw ci nag li nga xam ne nag mooy rumeur yi daw démb ba tey di wax ni euh, FIFA euh, dafa suspendre lii di arbitre bi ñetti at séngam loolee du lu officiel amul tey amul suba arbit VAR yaa ngi ñoom ñëpp a ngi ni séngam ñii di waa kaaf nag suspendre lañ leen buñ gisee ñu bëgg leen ci andi ay leeral. dañu doxantu nag ci fas pass bi nga xam ni moom waa FIFA am nañ ko ci gox yi fasantikoo yi dem nañ ci bi nekk anglais dem ci espagnol dem ci li nga xam ni ah, mooy français waaye amul benn yoon boo xam ne bile arbitre di arbitre gabone gis nañ ko fa ci benn information bu soqikoo ci ñoom CAF officiel ko kon loolee fausse information la li ñu am ci information dëgg dégg mooy ñoom ñi ngi coytu ci diggante waa CAF ak li nga xam ne mooy waa FIFA. fait que CAF daal di koy suspendre loolee manees naa am xel yaar yeneen information génn ci waaye fi ñu nii euh, tous tasar Omar Daf mi ñu leen andi lenn moo tax ñu andi ko. ca France mooy entraîneur bi nga xam ne ci weer wi ñu nekk génn ko mooy bu janvier mooy que ca gën a xarañ loole am na lu muy nuru.